75 ba ba ba ba demee ci Italie fekk ba bëgg a dem Italie damaa gént gis sëñ Murtala mu toog rob sëñ Murtala mu toog ci ab koñu kër ca jaareem li gént gi mu ngi toog ni ni ni am ñu koy nuyu ma daal di am waay joo xam ne damaa xamoon maamam ci ci ci mbir yi jabar ay ay suñu ko ren di misaal waa waay ja yor ab bant naa bant bant bii de mën naa faj lu ne naa faj lu ne waaw léegi nag ma ngay daw ci xeet topp ko léegi ginnaaw gént gi moom mën naa ci mën naa ci tasaruf xam naa ne maa ngi maa ngi ci ci gént ma ne naa daw topp ko ndax xam turu turu bant ba ndax ndax su ma yeewoo man ko jëriñoo ma romb si motulaa noonu toog ma ne ah te tamit si motulaa bu jag may addit su ma ko nuyoo dee kon kon kon keraw ma. voilà ma daal di koy koy romb daal di daal di daw topp waaja pour waaji ji raw ma ci ci gént gi ma dëpp fekk si motulaa mu toog noonu daa mel ne ke ke moom doo ko fa ne woo sax ma daal ma daal di ko ma daal di koy nuyu sëñ bi daal daal di mel ne ku ma jëpp ci jëf ji daal di jël ñaar loxoom yi dóor ci sa sa ma ñaar loxo yi nanguwumaa jox loxo ma ne ah ok ma daal di ma daal di ñëw keer ma daal di di ñëw Italie di vacance dem fekk oto sa sa sa sa moo tala ma daal di ñu dem wax ak moom ne ko de bi ne ko leetar ne ko samay baay ak samay ak samay baay samay maam ak samay baay ñu amoon yàlla ci suñu tubaab kon kon maa ngi koy wutee ci yow kon maa ngi koy kon maa ngi koy wutee ci yow ne ko yëruma dara de waaye waaye li ma xam sama bopp mooy musuma mu yàlla mu daal di baa na waaw waaw incha allah incha allah wala lettre la ci la ko bind incha allah kon nag waaw noonu ñu waxee nga xam ne balaa di dem ba ba ca ëllëg sama di ma dikkaat nuyu ba ma jubee buntu bi rek ba ma wane asalaamaaleykum bëgg raam noonu si nuyu rek ma ne ah xanaa da ngay dem ba xanaa bañ kii maanaam bañ ñu wër réew yooyu bu dee dikkaat ma ma ne ko wax nag dal gën joxewuma loxo ma ñëw di waxtaan ak sa sëñ Saalum moom mii moom mii ne ko ne ko sëñ bi de nee na ma xaar ko mu ne ma ah waaye Moussa te te ngaa dem te ngaa dem laaj addiya moo gën de sama xel daa ne ah ok addiya yi kon matière la bant ba ma gisoon matière la ah ok kon nag kon nag dama koy xaar. waaw ndax ndax ma génte ga matière laa toppoon ba ba ba sëñ Murtala talaal la raw ma kon kon te addi ji kon matière la ma ma ma daa ci gindiku daanaka ba baax na daa toog sëñ sëñ bi bi ñëw daal di di ñu nuyoo waaw xanaa dafa fa xaw a waxaat ma ne ko ma ne ma xaar musiba gi nii ma dem ba ngoon jot ngoon jot yàlla la dogal noonu ne si Moussa Diakhaté mii ma ma fa toog di waxtaan sëñ bi di waxtaan teb sangi noonu suuf di waxtaan sëriñ bi moom ak ak ñeneen am na benn benn mbokkum naari kajoor yooyu moo ko doon ataaya la góor ga góor ga taxaw nag moom mu ko noonu yàlla yàlla na ko yàlla doon ndimbal da di ko koppan xaw mu xam mu nekk ci ci ngor su borom gi daal di indi ataaya ñax daa ngi jot téere bi moom alxuraan di jàng bari koy xel kaas bi ñu naan ba kaas bi digg mu jox ñu ko ñu barkeelu waaw kër sax li ma jum sax mooy kaas bu balaa fàtte jël waaw kaas boo xam naa ku ci am kaas mu bu dem sëñ Tuubaa di jëfandikoo boo ko ma ne sax saxoon naa ko ngir ay mbir suñ bi noppee noo nee na noo nee na daal di si waaw waaw waaw sax laaw kon ngeen kon ngeen may koon daa am muy wax ñëpp génn ba ma def sa moom képp ak yàlla waaw mu daal ne waaw sala la waxoon waaw su ma daal di may ubbi ma ne ko waaw ma ne ma ne ko sama maam ak sama baay yi nga amoon yàlla ci suñu tubaab ma maa ngi koy wuti ci yow yuruma dara waaye xam naa ne musuma mu yàlla waaye dogal boo galfane yalfano naa ab ab bok not ako biig di baaxal dara suñ bi di xool ci ndajooram ci lal bi mel ne ku cher yooyu man ko mel ne de daal ko ci daal ko ko koy jox ma di bind bind bind bind daal dina ma bul ko wuti adduna ci kaw dafa laa téen keroog laa mos a dégg kàddu mu mu kawe kàddu mu tëdd mu kawe daal di téen daal daal di ma bul ko wuti adduna daal di ma ma may ñaanal ne ne ma soo soo dikkee su bu ndikkee Sénégal dañ la loolu dara ma ne waaw da dal li war na ma mu dara ay yoon ay yoon ma ne ca ma ne ca loolu nag di ko def di ko def di ko def di ko def. waaw maa nga xam ne mu daal di nag neex na rek nag daal di neex léeg-léeg mu am ca nag tàngooru u metti ma géntu ñu ne ma kat nangam ma nangam ay xeeti xob yi naa nag ren ay xas ma ne ah man nag dama dama yàlla dama dama defal ci moom moom moom suma sun borom waxee loo xam ne daa xaw a kii ci man ma day mel daal suñu diggante dafa neex ba ah loolu daal yàlla dafa dis ay naan xob ak yooyu daal moom léegi dis defum mu ko waaw su moom waa daal di tëdd ab yor yor rek déet mën ak bëccëg gannaaw subaar jàll li may wax ay baat ne ne wax ko baat jóg toog wax ko mu toog ko dal di ni griif waaw dal dañ te wa tàngoor wa àggoon na ci ba dem ci machine yi seet ba xam machine yi ne ma ne ma tàngoor normal la ma ci laa xam ne kon du tàngooru wusaayir daal di nekk ci ci ci ci ca noona ba lañ ca mën a waxtaan ci nag ndimbal yi yow waaw gama ci la xam ne mas na ko waxtaan ci ci ci ndimbal yi mooy bis nag ma ma may jàng sóoratu sóoratu sóoratu saariyaat ma ci moom tam sama sama umura ma daal di ma ma ma ma daal di gis ñu wan ma film ab adduna bu bu tukki nooy mel jeexal na subaar la de du subaar xanaa dama daal di bëri sax dama daal di jóg ñëw ci suñu bés jóg ma nekkoon ñu bokkoon kër ma ne ko ah suñu biir tey tey tey tey tey gis naa lu lu lu yéeme daal di koy ne nekk biir noonu waaw ñu nga xamante ne ñu dox ñuy dox nag léeg-léeg ñu ñu wax man nangam nangam jox la jox la jox la tur sangam. jox la tur sangam boo xamante ne nangam nangam léeg-léeg daal ay na nangam nangam yu bari am da ko jiroon ci quatre-vingt-douze heures fàtte naa ko ci sëñ Saliou yu jamono joxoon na ma loo xam ne ba ko jëfandikoo dafa tàng ci man tàng ci man boo xor dama ko daal di teg waaw tàng ci ci man loolu aw bëy ci ci xaside yi waaw nga xamante ne te ne moom it lu mel ne rab bi ba ay sax boobu mu joxat ma ko na dama gën doon gis sëñ Tuubaa ci ca ca ca keer mu ne ma mu ne ma loo bëgg yor ajjuma ma ne ko xanaa arrahmaan arrahim dala dala soxla mu ne ma ci xaar boo ñëwee waas bi Sénégal ma ñëw wax ko suñu abibu imam moome ma wax ko mu ne ma kon de da nga ci am lu leer ca kanam ba dem ci sëriñ Saliou mu jox ma ko daal ne ma digal naa ko digal naa ko digal naa ko lu ci nekk ci aw yiw ak secret ak leer yàlla na ko suñu boom defal waaw ak nag waaw yéen waaw ñu ñu dox ci ci ca noona bañ jël bañ jël werd werd nag werdu ma xuus ca ca sëñ Abdou Khadir yitteem ja quatre-vingt-huit moom it vingt-huit moom la woon moom yitteem ja daal mu ko waxee daal daal daal di toog waaw daal di jóg dem ci néeg ba di misaal bi di di jóg dem ci néeg ba andi andi nusxa bi andi ñoo taxaw jox ma ko di ma dox sarti ya waaw waaw suñu bakk Abdou Rahman moomu waaye bakk nee na keroog néegam la la la laa doon ba may seet si suñu moto waaw waaw loolu sëñ Abdou du Xaadir waaw nga xam ne dañ te naan te naan ginnaaw bi nekk bi suñu jaay si mutulaa joxaan na ma wedd bi waaw waaye da day mel ne ñoom ñaar ñoom moom kenn ku ne jëfe gala ginnaaw bi nag la ma ko soxla suñu saa yu jox nag ci mujj gi nga xam ne jëfe joxe jëfe gi joxe gi waaw waaw mu daal di mu daal di di mu daal di dem solo ci mujj nag suñu saa yu ne ma dem fa nag am lu ñu waxante nag ay mbir yu yu xóot yu xóot xóot yoo xam ne dana la sax daanaa ko nekk waaye ginnaaw bi dama gént gis ko nag mu ne ma loolu mu tënk li waaw waaw yu xóot te xóot yoo xam ne waaw loolu la inna sudura quburu ma daal mi mi mi mi ko xam ne nekkoon léeg-léeg nga ñu ñu dox noonu ay ay xéwal yu bëree bëri rek ay xéwal yu bëree bëri rek di di wàcc waaye nag li gën a la ci kii ci ci laaj bi nag mooy li ma gënoon a yittewoo jaamu yàlla yu bëri ma defuma ko woon daaw ma wóor kat nga def nangam ak nafil yu bëri yeeg li ma gënoon a yittewoo yàlla mooy mooy bañ a nafeq bañ a bokkaale bañ a gisal yooyu moom moo doon sa sam muy te dëgg dëgg dëgg dëgg moom lu ma nekk dama cay nekk bu ma ci génn génn ca waaw lu may nekk lu may nekk dama cay nekk su may génn génn ca waaw wóolu yàlla bu wér wér wér wér wér bàyyi sa mbàkkam bàyyi sa mbàkkam suñu wàllu sama ko wax kenn moom soit day Moustapha di jiw nañ la ma ne ma ne ko lu ngeen ma jëwee mu ne ma dañ ne da ngaa yaa kar yàlla ma ne ko waaw waaw waaw waaw lu bett tamit jot naa ne day gën waaw gars yi bu méttee ma waaw virus yu tardé wala yooyu moom man de li ma xam mooy suñu borom narul ci ab dirit lu may aw yiw waaw waaw loolu loolu loolu moo doon sam xalaat moo doon sama xalaat nga xam ne pas-pas bi tawhid ji wér te yàlla bu wéree wér jox yàlla ak xam jëm yeyoo te xam ko man xaw ma dëgg-dëgg ak xam ja jox yéen dimanche am ak xam jëm yeyoo te man xaw ma dëgg-dëgg ak xam ja jox jox si tubaab akam ji xuma xuma dëgg-dëgg akam ji ku ma taseel ku ne ci sang yi moo def ma jiima jox sa ak kam tu lay kattan ku ku ma gis ci jaamu yàlla yi daana am na jamono yoo xam ne sax muus ak yooyu yëpp dama leen daa wax sëñ bi daal wax sëñ muus soxna muus sëñ ganaar àggoon naa ci booba jamono loola ca ca njëriñ la njëriñ la maanaam booba ngir woo ma lépp rek ngir ci ci ma lépp ba ñu demee nag na ba ñu demee nag ba nga xam ne dem naa keer yàlla yàlla fa xeetal ma ci kuliitu usulu diin xismu aqida wal falsafa booba bi ñu bi ñu defee defee talab bi di ñaan kii ne yàlla ñetti tànn na ngay tànn man ma man benn tànn du ngay tànn ñetti yëpp dama koy def benn kuliitu usulu diin xismu aqida wal falsafa gaa yi ne ma ah waaw bu ñu ko may nag ma ne leen kon mu ñibbi waaw waaw man xaw ma nekk naa li ma xam mooy nii rek waaw man loolu laa xam ndekete boobu xanaa xaw ma sax ku li ak dafa ndax ku ma wax maanaam ak dafa dafa jafe nangam nangam waaye ku ma waxoon nag ma xoolaat ne waa ji mi nga xam ne dafa dafa jafe ndax moom da ko jàng sama xel dama jàngule ma ne kon kon waxam kon jot a sukkandiku kon loolu mbaal bi di cay noor ndekete boobu ak dafa falsafa ndekete tasawuf fa lañ koy jàngalee waaw ci dugg da da tamit nag di di di di boo ma boo ma joxe téere mu xaaral bi téere yi ja nga jallu dama cee jallu ba xam ndax dama seet waaw waaw paragraphe bi waa ji indi paqala bi bi mu indi ana ana bokk jiitu bu mu doon ana bu ca topp lu tax waa ji jël bii loola du ma doy damay dal bëgg a seeti ba xam waaw ndax ndax waa ji du ma xam ba xam dëgg dëgg dëgg gisee na mën naa wuteeg sama giseen ma nekk ma nekk ci ci ci ci ci boobu di ànd ak booba nag di dund dund booba la ma xam rek ñu dem ko ñu dem ko ñu dem ko théorisé nag waaw ma daal di téere bi ma 88 téere bi ma bi ma njëkk a jënd ñaari téere yi ma njëkk a jënd mooy benn bi moom Fusus Fusus Fusus yeekam li mu naan bi ma ko jëlee moom. am na tasawuf filmisaan wala ak tasawuf filmisaan benn waaye ko wax di wax ci tasawuf lu ñàkk solo may xool ma daal di ma jëndal benn téere ba tey quatre-vingt-huit la mooy fas ma xool ko waaye nag am na booba dëkkandoo yu ma nekkal waa ji ma dëkkal kooka mën naa wax ci ku baax lu kenn mënut a dégg mën naa wax ci ku ne lu mënut a dégg ma ma ragal ma ragal mu gis téere ba ma ma daj ko waaw ma daal di jox ma daal di ma daal mu jëlaat benn téere mooy Igaasul Himam fi fi fi fi Sarxil Xikam kooku dama dama ne mooy mooy sama Cheikh Umar bi dëgg na moom booba li may dund fu ma fu ma toll da su ma su ma ubbee wan ma ko ne ma fii nga toll nangam ak nangam mooy sart yi lii nga gis nangam lee mu ci topp nangam firil ma kii ya waaw anwaaru muwajjaha ak anwaaru nangam ak yooyu ni mu koy waxee. waaw dama leeral man sa tolluwaay mu yéemu lool sax ndax téere boobu borom nee na ilham la ko bind waaye ilham buñ ko ilham da koy yàq ci kitaab ak sunna muy leer ma ne ca ma ne ca ma ma nekk noonu nag nga xam ne nekkoon téere yi soo ma fàttaliku ko mas naa def muhaadara boo xam ne muhaadara boo xam ne ci Tuuski ki la woon daayira ba sabta ma ko moom xaw ma xëy xaw ma xëy sadis lekk naa booba ma ma def ko fa li Égypte ka noppee sëñ sëñ Ahmad Samb mi mu jur asar bi moo doon modéré waxtaan ma bu mu noppee da daal ne ah ndaxte man xawma lu xawma ci dara waaye waaye xutba yi xutba yi bëri na gars yi daal di xaar taay waaw waaw waaw waaw boobu sax na adul ñoom ña nga fa sa sa sëñ bés jóoba nga jóoba nga fa gars yi bëri na ko booba waaye ma gis ñu xaar taay xam ne amul amul commentaire waaw ku ñu wax Moubarak Lo ma nga fa lu bëree bëri daal waaye kenn commentaire wul dañ ma reer rek waaye loola man taxul it ma taxaw ma ne ma ne ca loola. ndax ndax boobu am naa am naa yu mu basiraat léeg-léeg ñu war ma dara dara ci coo xam ne ay tur bagage ma nekkee di di ko def ma dem nag ba ba quatre-vingt-quinze nag ma dem ca Italie Italie xam ne ko kon kon kon daal ci ci tënk loola jural na may ay ay ay ay xéwal yu bare bare bare bare bare bare bare ma bi xamante ne bi kafaris yu bare bare bare bare loolu ñuy wax baat bu ñuy wax ilham loola loola am naa ci lu na ci la ñuy wax diwaan am naa ci lu na ci ajjana jooje ñuy wax alaxira am naa ci lu na ci ci tax ba nga xam ne mën naa am foofu foofu foofu foofu balaa koy tënki ñu tuddee almiraju ruux yi am na am naa ci ci ci ceelu ne ci ci ci waaw nga xam ne nga xam ne ne daal daal yu bëree bëri nekkatul lu may lam lame waaye lu ma leer nañ ñi la xam ne doxu biir ba waaw am naa ci ci yoo xam ne danaay wax ne nag ci ay waay jànkati arab yi ñoo gën a ñàkk sens ci ci wàll jànkati tubaab bi donc waaye ñoom dañuy gëm mystique gëm soof moom ñoom waaye dañ dul xam jànkati arab yi ñoom tasawuf dañ ko xamut ñoom maanaam dañ ko gëmut nga xam ne ay waay tasawuf de li ci nekk ci ay ay kiimtaan ak ay njëriñ xam ngi mu xamante dund ko koo xamante ne ne ne fexe nga ba ba ñàkk ko ne amoo ca ab cër perte nga perte ma boo xamante ne mënut ko dabb waaw xam ne yu bëree baree baree bëri yoo xam ne ay ay ay njëriñ ak xam-xam ak i nangam ak i tawfeex ak yu yéeme yoo xam ne ak di tur yàlla yi nga nga kër ci jot bu bu kenn ku baax demee la lam yoroon si bam jox la ko nga nga ci ci ci nga doon ko xasida yi nga ngay xam njëriñ ya di xam alxuraan ji noo koy jëfandikoo. yu bëree bëree bëree bëri yoo xam ne yoo xam ne daal nuwoog daal yàlla ñu defal tawfeex sëñ Xaadim laaj ba laaj baa ngoog tontu tontu laa ngoog kem kem tulaay kattan la ca jootu na jootu na wax sëñ na caa wax dara dañ la ko wax mi ngoog waaw lu ma ca juum ma ngi koy jéggulu di ko def lépp muy addiyey Rasul sallallahu alayhi wa sallam ak addiyey soppeem ba soppeem ba jëw nañu jëw mooy Seex na Ahmad Xadim ak nag diyaay ku ma mas a jëriñ ci ci noom ma jëriñ ci yoon yàlla salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh